Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. na len yeen ñep ku ci nek ci turam ak santam di len jox waccu way di len dalal jam nan dal jam si barki sayyidina Muhammad na len nañ commencé waxtaan bi ci bismillahi rahmaani rahim pare ko ci alhamdulillahi rabbil alamin di len ñaanal jam di len dalal jam nan dal len jam nu daal di waxtaan tay si beneen waxtaan continuer waxtaan bi wala toujours nekk si waxtaan bi dinaa leen salaam salaam salaam salaam bon samedi tout le monde ñu liggéey week bi yëpp ba samedi jot naa leen bon repo ñu nga xam ni que ba corona bi commencé ba léegi ñoo ngi si repos bi nu naa leen wooy lii wal na gaaw a jeex nu commencé waat waay naa leen encore salaam ok man tey damay commencer waxtaan bi à propos d'un boo xam ne ni que dama ko gis seetlu ko bàyyee ko xel démb mu nekk à propos wu suñuy jikko comme toujours rek suñuy jikko mënoona di ko bàyyee gannaaw saa su ne faaw nu siy waxtaan di ko waxtaanee di ko ñaaxante moo tax it lu mënut a ñàkk la alhamdulillahi rabbil alamin ok léegi démb wax dëgg fa yàlla dama am lu ma naqari dama am lu ma gis te dama am encore confirmation confirmation bi moom mooy confirmation wu lan les sénégalais lu leen teg ñoo ko teg seen bopp sénégalais yi lu leen def ñoo ko def seen bopp sénégale yi mën na noo caaxaan te bëgg na noo caaxaan mais aussi c'était sans compter aussi ak sunu presse mensongère bu may wax chaque jour démb dama gis benn sondage gis benn affaire boo xam dama ko xool ma ne noonu bàyyi sénégalais yi télé yi day daw nit ñi toog di wax lu am la doo si gis benn sénégalais nit ñi jël ñaari fou ñaari dof walla ñaari nit ñoo xam ne mooy leen exposé leen si chaîne télévisée yi nit ña fees fa dell dell dell dem toog di xool pour wax wax lan waxu dof waaw parce que démb émission waxu dof la won saa waa jooju ne leen waxu dof mo koy dundal Sénégal si waxu dof la amé këram si waxu dof la takkee jabar xaw ma si waxu dof waxu dof bi dal moo donc ça veut dire que ay dof la ko sékkal demb ñoo ngi ko invité ak benen dof ñaari dof tek len mais légui man c'est ce que je veux comprendre c'est quelle est cette nouvelle tendance de ces chaînes télévisées aller chercher des fous dans le pays jël Mongolie diko exposer si kanam nit ñi quel est le message quoi on a aucun problème contre ñom on n'a aucun problème tout ça mais c'est quoi le message ñoom lan mooy seen but surtout en période de crise en période où nit ñi di nous di ñaxtu ñuy xool solution quel est leur but aller prendre ces comédiens ces clowns là venir nous exposer sur les chaînes au lieu de nous donner une solution ndaw yi di dee si on hein? une solution dooma xaraam yi ne Nous ci bir dëkk bi di lek xaalisu dëkk bi kenn waxul ak ñoom génnew duñu comme ñu koy waxati les anciens enregistrements yu nga xam ne ni que suñ ko doon mu Nous nit ñi waxu yi mo ngi yi récapitulatif mais ils essaient de nous occuper dans quoi la distraction 2STV Mamam, mooy xom sa njaay laa sa sa connard laa tukkuleur de merde na ma baal waa les autres tukkuleur baal leen ma mais sa gars de en personne parce que moo fi ñëw toog teg fi ay affaire de lan ne ba ko bandum bandum di jaay day par parloo comme nu ma ko fi waxee ces histoires de par parloo ces histoires de naa fekk ay affaire di wan ni kii ni nangam su ngeen ko fi bëggee dox wala mu am ñu ko fi bëgg a dox day metti day metti si boo na nit ñi ubbi seen loxo nu ñëpp nu yaataloo ànd moo gën sa con de merde ba mu fi toogee naan ay Macky kii nangam parce que léegi xam na ni que Macky Sall àndal Macky Sall moo koy dooleel léegi il faut profiter pour distraire le peuple El Hadj Ndiaye de merde déggoolu na El Hadj Ndiaye de putain de merde jël peuple bi di leen jéem a distraire au au lieu d'amener les vrais programmes dugalal nit ñi dara seen bopp yi toujours maintenant El Hadj Ndiaye su ngeen seetlooee ba Macky Sall toogee ba léegi ay émission foo rek lay teg si télé bi ay émission wu rek la waa 2S di teg léegi lu dul ay affaire de qui occuper les gens dans la connerie 2S léegi ne sait même plus d'aller soo commencer, sax nekk un bon journaliste dans la 2S ce connard de El Ndiaye va te chasser soo xoolee seetlu ay genre Pape Sidi ay doom xam non change cet animateur là commencez nañ ko bu ko on prend même les gens qui s'amusaient avant à faire des émissions hip hop pour pour essayer de les mettre maintenant journalistes pour qu'ils continuent à amuser la galerie quoi Et là ils se foutent de la gueule de qui cette presse mensongère suñ si cette presse mensongère ils vont endoctriner tous nos enfants ils vont les foutre en l'air presse mensongère demb dama ko xol sama daw sama yaram daw Je non émission yu dëkk bi di wax ay ñu di de ils pas de s'instruire xam lu xam non ces cons là ils essayent pas de s'instruire et de connaître lu xew si toujours à s'amuser toujours à s'amuser quoi ñaari clown ñu teg ñaari clown si kanam télé bi ils s'insultent ils se racontent de la merde qu'est-ce qu'il y a de drôle pour nous qu'est-ce que ça a de bénéfice pour le pays quelle est la leçon dans ça man yéen sénégalais yi la laaj yéen dem tok fa di fas kii nii nangam expliquez-moi léegi su ngeen paree lu ngeen sey jàngat la la ñuy jëriñ on a qu'à se dire la vérité surtout en pleine crise nit ñi di wut solution allez mettre deux Mongols comme ça devant la télé, qui raconte, ils se tapent dessus, ils se crient dessus, comme un combat de coq. Comme combat de coq, comme un combat de coq ou le combat de chien. Ñaari sont seni en direct Quel est le bonus? Quel est notre intérêt dedans? Ils veulent nous occuper, nous divertir, nous faire rire. Bon, comment, comment peut-on nous rire en cette période? Comment avons-nous le cœur de rire en pleine crise Comment avons-nous le cœur d'être badigeonné à sauter quand on perd des milliers de, frères dans l'océan Vous avez le temps encore de rigoler. Donc la vie ne vous dit rien. La vie ne vous dit rien. Donc souvent aussi, le laine Makesal dit tech aussi. Un moment, c'est bon. Le Noutouba BDF, c'est bon parce que c'est nous que nous les infligeons avant tout le monde. Donc, on n'est pas sérieux dans rien on est en train de s'amuser même pendant que les gens sont sérieux y a la crise nous on s'amuse dara dara quoi en pleine crise tous les gens cherchent des solutions nous on trouve des moyens à mettre des gens des mongols wala des gens qui sont fous dans la tête pour essayer de Nous, ñuy nous nous ñu toog di en di et après on est fier on devait trouver des meilleures solutions pour ces fous égarés que de les exposer devant la télé et et et d'en rigoler et d'en rigoler parce qu'à ce moment là c'est pas drôle Il y a rien de drôle

Vous voulez nous faire rire pendant que vous nous volez. Pendant que nous nous ça, nous font rire. Qu'est-ce qu'il y a d'intelligent dans ça Qu'est-ce qu'il y a de drôle Hein Vous nous parlez de quoi Tous les jours à s'amuser, quoi. Tous les jours à s'amuser. Tous les jours à s'amuser. Vous croyez que c'est comment soo waxee daal ay waxu naka sa ay waxu kii Sénégal dina jafe defar parce que on n'est pas sérieux on n'est pas sérieux on est sérieux dans rien président bi nak mom lepp lu mu nu ce con là que quoi, lépp lu mu def mo tay. vrai imbécile aso ñuy toog fii nii jël di endoctriner nit ñi en plein deux mille vingt ñëpp a ngi développé di émerger yéen ngeen foofu na nekk ay esclave quoi nekk toujours di def ay affaire de esclave ay affaire de dof toog ñu leen di téye comme slavery what the fuck two thousand twenty baay ñëpp émerger gars yi ngi dem yéen toujours esclave esclave toog fii dinaa kii ay fucking président fuck that shit yeewu leen yeewu leen lan leen wax yeewu leen nit ñi am leen lu gën metti yii nii koo si wax léegi kaay nu leeralal la wala kaay nu giddi la wala kaay nu def ndox sa bopp bi nga daal di commencé tëb di mer waaye kii nangam pendant ce temps voici le pays jël sa lépp jox ko ay sëriñ ay dooma xaraam nu takk la baat buum si baat ba pare nga wal wëlbatiku nga tourné fee nu jël ay comédien wala ay conneries teg ko sa kanam pour nu occuper la ngeen toog di ree di tàccu toog di ree ree qu'est-ce qu'il y a de drôle ngeen ba pare bon ñëwaat ngeen toog bon léegi qu'est-ce qu'il y

mais billahi wallahi ku dox si dans le dans la sous-région xool xam ni que sénégalais est loin d'être intelligent moo tax ñoom ñoo ngi dem ñun ñoo ngi toog téye wax gi di ngemb di tëb di dal rek téye wax gi di wax di dem rek mais rien n'a changé rien n'est kii wax gi paj paj paj paj lu ñuy wax moo ëpp lu ñuy def sur le terrain wax rek wax wax pare ñëw toog sénégalais soo ko déggee muy wax ba nga wóolu ko dénk ko sa bopp mooy taylee na la C'est quoi le problème Toujours à s'amuser. Toujours à s'amuser. Mais non, madame, après léegi Sénégal Après les waxee ils sont là, ils sont là, ay sont là, ay sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils la là, ils sont là, ils bon là, ils su sont ko ils sont c'est expliquez-moi c'est d'où vient votre goût ou bien d'où vient votre amour à mettre ñaari dof nuy saagante di moulin mu leen di neex mu leen di ree di cokotaan seen xol loolu di ko doomaraam la jarul bañ jarul bañ de jarul bañ sax di ki vous êtes des cons ñu bon ngeen parce que sen un su n'est seen doom yi fait dof yoy noonu du ngi leen exposé mais qu'est-ce qu'il y a de drôle un paulish con comme ça prendre l'autre je ne sais pas l'autre fou là ñaari dof mom la c'est comme si nga jël ñaari xar wala ñaari xaj

waaw mais ñaari dof wala di raconter de la merde wala di wax waxu dof fa di di comme ça les chaîne télévisée ko mu del nu deuxième nu deuxième édition dem jëlaat beneen ñaari dof xam naa yoon moom la ñuy jël nu nu xeex ñaar nu ñëw xeex plateau bi mu am buzz yi nekk comme que ñoom mooy la suñu demee ba nar a fay temps yi nii album amul wayunu suñu demee ba nar a fay nu dajee fenn noqante mayante benn kii nu woo leen si plateau yi may na xaas nu doxal ñun ñooy con ñooy dof ni ñoom ñu jël ñaari dof teg leen si biir kii voilà bon man ma ne leen le quel est le deal quelle l'histoire léegi yéen lan ngeen si jublu lan ngeen si dégg lan ngeen si comprendre lan la ñu jëriñ fan la ñuy yóbbee ak lan mooy surtout en pleine crise en pleine période que tout le monde cherche des solutions su ay doomu xaraam ngeen ngeen mer tëb fi je veux qu'on m'explique. J'arrive plus à me comprendre. J'arrive plus à me comprendre. Yeah? Jelen, ça, je n'arrive même pas à bien prononcer ton nom, quoi. Jelen Burum Jay. Wow kooku xam nga lu tax ma koy tepp Parce que je parce que fofu don dama ko narone mujjé mais dang mo waaxu danga ma waaxu eh, néna len leen Macky Sall va promouvoir l'homosexualité au Sénégal avant de quitter Macky Sall va promouvoir l'homosexualité au Sénégal avant de quitter il a commencé bel et bien ñun nak jotoon nañ am ministre gor jigéen gars yi ñoo fi nekk di wax di bañ di tourner rek di expliquer am nañ fi ministre góor jigéen en période nii te jotoon nañ fee am sa premier ministre kii mak Karim Wade góor jigéen la nu noq fële Karim Wade góor jigéen la et encore et je redis ça encore et je réitère kuy mer na dee Karim Wade jàgg la looloo andi woon problème am ak euh, euh, wati euh, Idrissa Seck ak Cheikh Tidiane Gadio ak tout le gouvernement gars du du leen parce que moi, loolu ils étaient cons ay cons leen ay dooma xaraam mais ils ont au moins un petit peu de djiko sénégalais bo xamné moy mooy Karim Wade Sénégal Karim Wade toutes les positions Karim Wade est ouest or tout l'argent Karim Wade déggoo ko biiral na Karim Wade wul buntu keuru ken jigen yi doon dee Sénégal booy booy yu ñaaw Sénégal dañu leen di fal directeur rek directeur cabinet bu gëna ndaw wala ruq bi nu commencé gaare oto yi fu nekk laa la wax xale yi mool la ñuy teg takk waaye xoolal xoolal rek bu gën a dee boog Aliou Sall xoolal Aliou Sall le pantin du Sénégal buubu golo sax am na ñaar xaw ma ñetti jabar nga xam ni que affaire bi xaalis la Karim Wade a tenu tous les rênes déggoo ko fenn si kii nangam mais nag quand il y un grand éclatement qui s'est passé au Sénégal L'histoire des Magnankassé, des Pambaye, tout ça, le mariage qui se passait là-bas, là, c'est dans cette même période qu'on a élu ce Idriss Kaba. ba nu jàppee ba nu jàppee saa waay boo yooyu noonu di wax lan leen waxoon su leen libéré wulee di neen claté ay nit ñoo xam ne ñuy génn ak ñoom ñu nekkoon si biir nguur gi affaire bi jaaxal leen toogul ñun sax deux trois du leen libéré jox leen passeport diplomatique ak visa Schengen gars yépp seey ñii ngi États-Unis ñii ngi fële ñii ngi fële ak dund yu baax nag déggoo leen ma de yéen a fa nekk di wax yéen a fa nekk di wax Karim Wade nu ñëw teg ko à l'astral commencé ko expliquer di laaj pointe kii mu créer nu femme fictive gars yi naan moom laak du moom israélien juif la woon ah ah, ah waa dee na waa anam woo suul nañ ko wala nu photo ba tey ba suba kenn mënulaa wan ni que photo baa ngi kii moo nekkoon jabar gi kii mooy la soi-disant juif bu nu suul infermaire bam gars yi dëppaale wax bi maasaale ko dem le plus grand nu ngi koy waxti secret national wala la hold up national tournage yu Sénégal mooy Ablaye Wade ko def mooy boobu Idrissa Ka eh, boobu Kaba ministre de la justice gën na doomaraam ñëpp kooku moom góor jigéen confondu ñu continuer nekk si wax gi di ñëw moo tax nag tey bu ñu joxe ba émission bi comme ni nga ko gisee noonu abo bu ñu teg bi góor jigéen gis ñoo leen di invité si télé ñi sax léegi ñoo leen di invité ñoo ngi leen ñoo ngi yombaat gars yi commencé bëri ñoo ngi leen di jàpp di ki Akon na Akon kon moo ko may place ah ab ah, ah, du Macky Sall jox na ko mais te pourtant Akon ba mu fi ñëwee dem ñëw bëgg a lighten Africa du Macky Sall da ko boobu arrangé wu ko woon gisu si woon boppam lumière ay affaire de kii lekk lekk lekkam la woon euh, ak compagnie su finance woon ñu ñëw lekk nu nax nu teg seen i kii dem ah, ah euh, Macky Sall ne ko du ko fi amee mais ba mu andee projet wu le kaay ma def fi city Akon City ñëw teg affaire yu góor jigéen immeuble yu góor ay immeuble yu mel ni ay awra ay affaire yu kii promouvoir Macky Sall ne ko ok coolul xaalal ko si suñuy côte terrain gu bëri jox ne ko fii nga koy samp dañ doxal yéen kay nee naa leen Macky Sall balaa mu fiy jóge góor jigéen yi taxaw fi ba mu ne jàpp doole gu bëri kay fa doole gu bari yeen yeena fa nek de di ke di legi doyatu nu bu ñeeku ba du doon laqatu ñuy japp di nok ñuy ke ni nangam di ke mais legi ñong leen di andi ci kanamu tele ciolul lolu moy ñong ci si biir kër yi parce que keur gu nek amna tele hein ah waaw keur gu nek amna tele une fois que chaîne télévisée ni andil góor ni ñi ñuy ku rek japp leen ni ko duggu nañ si biir kër yi ah, waaw tele yaa ngi ñuy forcer goor ela ndjay Elaaj Ndiaye commencé na see bol ak réwandé commencé na see bolé ay affaire réwandé andé nañu nanu dof yi teg ko go jigéen ñi créé ay émission la Ndiaye fi jusqu'à la preuve du contraire do tolen ko dégg mu tegati ay affaire yo xam ne ni day dem luy nek luy gënz Macky Sall à l'encontre de Macky Sall à l'encontre de Macky Sall do ko gis parce que sen communauté bobu len def communauté wu bandirabe yu am khalis ñew ñom ñëpp def ben poids ginnaw ki pour créer ben business quoi te loolu noonu tamit encore dinañ si yegg si de yéen a ngi koy doxal ndànk nag ñoo ngi noppi man mii nii comme ni ma ko waxee je vais y mettre ma bouche te kenn ëppale wu ma si voilà gënoo leen maa nekk pël woo leen ma si pël yi ëppale woo leen ma si xoolal fulaani mais dinañ si wax. cette mondialisation ki commence à venir wala wax gu bëri gi suñu joxoñee rek gars yi yuuxu wala gars yi am lu ñuy wax dinañ si wax de dinañ si wax. gën leen noo rëy làmmiñ c'est la même façon noonu la ñuuxit yi def ba ñëw toog si bopp nit ñi c'est la même façon tamit lañ ko lijjatee koo wax rek léegi jamono ji soo leen seetloo pël yi ak bandiraabe yi seen yaram dafa tàng doo too wax dara ba nu saanu saaga la loo wax loo kii rek nu graccaaj saaga ils sont ils sont devenus vénères di jaay ni que ñoo gën a tàng nit ñi boobu ba léegi gars yaa ngi négocier di massa di leen seetaan di tëb c'est parce que daa am yoo xam ne duñ ko talagul mais nee naa leen suñ si tolle dinañ ko lijjanti parce que bàyyi moo moo leen du ngeen def lu ba pare ne duñ koy gëm nee naa leen cette nouvelle génération nous sommes en 2020 tout se dit haut tout de personne personne n'a peur de personne cette mondialisation bu gars yi commencé teg ne bokk bandum bandum jéem a ñëw jéem a xool ñu nii jéem a teg di jéem a dund nit ñi su àndoon ak xool yaatal ak yaatale sa gars yi dinañ ko gëm mais dafa ànd ak lu naan vrai vrai vrai vrai soxor dafa ànd ak vrai vrai vrai vrai vrai soxor loolu dama koy wax. jamono looloo andi problème yi entre ak Pelé ak yeeg Malenka yi eh, en en Guinée looloo andi problème bi entre Pelé Soussou yeeg Malenka yeeg tout cela. te lol nak man dama ko seetloo Guinée dafa ñeu am Sénégal dafa am Mali dafa ya ya ça dans toute l'Afrique là où y' les Fulani C'est le même problème mais c'est quoi C'est quoi le truc seen mondialisation boobu non ñuy def bop sen bop la Bop sen bop ñom sen bir mën na no jappalante defante kii mais une fois que ça arrive maintenant yaatal oubil pour boole les autres ethnies ça commence à devenir vraiment vraiment un truc bo xamné ni que sen xol bi day yëg. seen xol bi day yëk ñoom seen biir seen biir amul problème mais une fois que une autre ethnie yëk yëg dañuy soxor day metti walul génn da ngeen koy seetlu su ma ko waxee gars yi mer yéen ñi nekk Sénégal xool leen néew ma ni que pël Haalpulaar wala kii du may jabarom beneen et du may doomam beneen kii de mais balaa looloo am non day fekk mu am ay affaire wala seen ñaari baay yi amoon fu mu jaal mu nekk une longue histoire pour que bandiraabe may doomam leneen lu dul bandiraabe nii nii nii nii nii nii nii foog histoire ba jiitu baayam foog histoire ba jiitu baayam mais nii nii nii rek nga dox nii rek forgelu bandiraabe ñëw famille bi ob ob non bàyyi lay bandiraabe c'est les bandiraabe le noonu lañ ko lijjantee ñoom seen bopp da ngay dem xool ñoom seen biir ñooy sëy ñoom seen biir ñooy sëy yenn yenn yi ñooy briser les règles génn si ñëw dugg si yeneen gaam yi parce que lu tax comme ni ma ko waxee dafa jiitu seen baay ñoom benn affaire amitié entre seen baay la on va le parce que su nga xoolee tey dëkk bi noonu lañ ko toogee tey Sénégal dañoo dem ba sant bi moo dëkkul fenn tey nag da ngay foog ne nag suñu demee suñu nee bandiraabe rek da nga naan ka si noo non njaayeen bandiraabe am na da ngay de gars yi sant dëkkatul fenn léegi gars yi dañoo ñëw toog créer benn affaire ni que nii créer une grande man de ça va ça va finir on nit doomu aadama point ñun nag suñu demee ba teg loolu noonu ñoom ñu ñëw bëgg noo teg lool noonu donc si woote du koy wuyu waaw suñ ko waxee duñ koy wuyu donc koy wuyu man je ne suis pas dans ce truc mais lu nu gis la ñuy wax te looloo moo fi commencé daw moo fi commencé ëpp loxo gars yi pour nu yaatal seen xol bi c'est tout un problème seen làmmiñ la yem seen làmmiñ la yem lu ñuy wax lépp seen làmmiñ la yem soo balaa nga koy gis tey jii nii tey tey ngeen koy xam tey ngeen koy xam kenn du wax si ñoom kenn du laal si ñoom kenn du kii si ñoom ñoom ñoom la rek ñoom lu nu def baax na ñoom ils sont lépp kii ne leen seetaan ne kii nangam c'est kii soo waxee nu tëb saaga tey ngay indi gis gars yi wëlbatiku saaga créé affaire dem def gang même chose mais nee naa man aïe aïe fu franchement franchement franchement je m'en tape Sénégal moom waaw du ma ne sax Sénégal mais dama naan Afrique Afrique tollu nañ si jamono joo xam ne su benn ethnie mënutul toog daal di revendiquer ne que fii sama territoire on doit la fermer nous tous te jël affaire de ethnicité yi teg ko fële jël liggéey dëkk bee gën Wow, parce que nous, ñëpp nous, nous, comme nous ma nous, on va ramener les livres d'histoire Les livre histoire nous su nous un grand nettoyage Nous nous fu nous Nous nous nous Nous histoire nous rapatrier chacun là où il vient wax gi mais non non oh, non nous ne Macky saalo soo ñëwee jege ko làkk làkk ko tukulóor làkk ko tukulóor jóge mu jox la poste may la xaas gu bëri Macky Sall demal rek làkk ko na la yàlla jàppale ba nga mën làkk tukulóor ngeen jàkkaarloo ngeen jàkkaarloo waaw nga ñëw mbaddas seel yaa jot waaye dugg si ruq yi waaye hey nga soo leen génnee mu defar la aise parce que mooy lool c'est la famille mooy loolu mais benn rek la fàtte nag hein dolli range de dolli te mu nekk si village a maatam bi foofu noonu hein moo la na leen dem jàppale jàppalewul pël poli, poli mom moom moom jàppalewu leen seen benn liggéey mais jàppale na leen jox len xaalisu sàcc xaalisu sàcc bi mom jox na len ko ram la suñu jugge ni tuk di wax gaay neena siwa. kenn du ci wax yena def lu ngeen di def nak duñ ci wax yena def lu ngeen di def duñ ci wax voilà dan commencé nalen naa leen nee naa leen c'est la même histoire qui s'est passé en Guinée xamna ni que daam ñu bari ñu l'histoire qui s'est passé en Guinée entre ces peuples c'est Soussou elle est Malinké. Ça, ça c'est une vieille histoire de l'époque de Sékou Touré. Nous, dans une génération qui ni parle sans connaissance de cause ñeneen ñi ni nangam di wax mais nee naa leen sunu yenn baay yeeg sunu yenn personnes yu fekkee woon jamono Sékou Touré ils savent d'où le problème vient c'est une histoire depuis l'époque de Sékou Touré ils ont fait une grosse connerie Ils ont fait une ko connerie. la malinke tous tout le reste là j'ai pu ni ne les plus jamais plus jamais parce que nous, on les a fait confiance Dans demoon pël yi nous nous confiance Nous trahir confiance cette race là bàyyi déggoo en plein c'est que ba mu ñëwee tok ba créer affaire tek Tech. de a génn créer son propre franc guinéen tous les pays l'ont laissé surtout la France Mon ko njëkk a xeex looloo tax c'est eh, le national sen sen CFA sen xaliss bobu non jarul sax dara devant le CFA lolo wara tay ngay meuna am ben 10000 francs nga dem lu jox le sang parce que lutax époque bobu non français de nous jël ay phobie yu bari phobie yu bari parce qu'ils n'ont pas aimé le fait que c'est couturé. vient les tenir tête ñu ñëw ñom seen bop ñoo yónnee armée français ay affaire infesté xaar sili national seen xaliss bi infesté ko xolal ay phobie ba nga xamni que ils ont plus été compétitifs dans le marché international ku sa xaliss infesté nu bëri sé ki gis dootoo mën sa xaalis dootul am valeur day chuter non la français ay def ba daaneel silib léegi nag boobu jamono Sékou Touré mëna tul xolal tenir affaire pour faire un business entre les autres pays importer ceeb affaire non noonu dundal dëkk c'était un problème parce que kenn wóolatu ko kenn wóolatu ko du naan non xaalisam dafa infesté muy lijjanti muy lijjanti famine commencé am Guinée famine famine xiif comment mu génn dem lijjanti ji ba am bato ceeb am bato ceeb ministre bu waroon di lijjanti affaire boobu noonu taay noonu appel la woon jël bato ceeb bi teg ko si loxoom daal di ko ne dama jël bato ceeb bi nga jël nga seddale ko waa dëkk bi xam nga ku si nekk mën na see gis en attendant ñuy régler problème bi nandite bi lan la def daa dawal bato bi ba si village am gaare ko fa jox ko ay mbokkam nante bu bëgg a yóbbu ko jox ko mbokkam waa bandiraa bi avant tout le monde dundal gaayam gars yi toog weeru yàlla gars yi di gën a xiif gisuñu dara ba émeute am si dëkk bi président bi di soog a comprendre que ni ko oh mais ana bato ceeb bi bato ceeb bu yàgg si biir c'est là sa ça commence à péter gars yi ne leen plus jamais plus jamais yéen en pleine crise ni ñëpp nu bokk nekk si dëkk bi di souffrir nekk fii xiif président bi dem di jënti andi ñëw teg yéen ngeen dem beral nu mënee rey di ngeen nu rey sa gannaaw rek sa gannaaw rek ah non mais ah euh, ka kaaga ci am ay affaire xam nga la mo gëna bon il ne faut pas généraliser mais le problème mooy ni que nag xam nga ñu yàqale ñoo yaqal ñeneen ni quoi c'est ça le truc personne n'a jamais rien généralisé mais la majorité ñooy yaqal ñeneen ni foo dem day am ñu baax am ñu bon mais gis nga soble yu nëb comme ni mako yag waxé rek. sooy dem di jëndi saaku soble doo dem doo gis mukk saaku bi yëpp nëb mais majorité soble suñu nëbbee mooy saaku bu bon la da ngay dem jël majorité soble yu baax yi boo ñëwee saaku yu baax on n'est pas là en de généraliser de on n'a pas le temps de généraliser lu ñuy wax dafa clair mais nag daa am ñu yàqal ñeneen ñi ñu yàqal ñeneen ñi ñoo gën a fës loolay wax gi tey jii nii comme Macky Sall moo ngi yàqal tous les halpulaar si Sénégal ak yeneen halpulaar yu nekk si ginnaawam ñëpp parce que lii nii duñ koy wax te dee set mondialisation bi nu te affaire bi nu ñëw teg nii Macky dina tax ni que kenn dootul mën a wóolu un autre banderaabe bi ñëw jël dëkk bi exemple gën a ndaw rek parce que war nañu jikkoom si diggante ñaari mandat te war nañu ko du suur du reg te nit ñu mu àndaloo ñoom ñëpp tamit waxuñu ko dëgg canaliser ko ñoo ngi ànd ak moom si lekk bi di wéy di wëlis di dem di saaga nit ñi di jaay doole naxante neex na mais bis bu gaa yi naxantee tamit ñun tamit ba saa mu tëb fi ba teg fi leneen bu kenn bu leneen tamit bu mu leen étonné hein, élection di am ñuy andi seeni candidat gars yi naa leen du ko fi parce que tamit nit ku ñu koon kon kon boo xam ne mais ah les les du ko ti les faire à cheval là ça reste marqué à vie hein ça reste marqué à vie c'est ça le problème toujours que ñuy wante dëgg bala affaire yi di dem di toll à un degré nit ñi naan comprendre nu lu xew fekk ni que ba muy commencé on était tous là.

dina fait, dina jafe parce que Macky Sall tous les autres futurs leaders voilà les futurs jeunes gens xam les ngi wala ko wala mais mais notre esprit va douter notre esprit va douter ça va douter parce que pourquoi il y a eu un un qui est passé avant et qui nous a donné un qui nous a laissé nous un mauvais souvenir un mauvais souvenir c'est ça le truc Lewis Doumbia man comme nous ma koy waxee peul de pël laa sama foot foot pur I don't care je suis fier de ce que je suis quoi xam nga sama baay sous susu sama ndey peul foot pur la léegi nag mom, je suis fier de ce que je suis mais ça ne veut pas dire que ni que je suis fier d'être un menteur wala je vais essayer non non je ne suis pas dans ces trucs yooyu noonu nous parents yi defoon ni andi ko moo nu le problème Yo, man je ne suis pas dans ça yéenay comprendre loolay wax gi ñun nag danoo tam loolu non. trop yooyu suñu parents yee ko créé woon moo nu cangal fii ba tey Nous tax ba tey mënunoo dem Mo andi tous ces problèmes en Afrique man je ne marche pas dans ça man je marche dans l'air leer on a qu'à se dire la vérité on a qu'à se respecter en tant qu'on est le respect se mérite quand tu veux te faire respecter tu donnes du respect man c'est ça que je crois que laa gëm mais gëw ma ay affaire di diw lii la diw lee la diw nii la diw nee la non

Kaka Thiam na comme Moussa Guinée loolu dama a nëbb ay Moussa Guinée je loolu musuma man maa jaajëf je suis guinéen d' origine loolu dama ko nëbb musuma ko nëbb soo bañee lu nga doon daa fekk nga gën see ñaaw bañu ma ko je l'ai toujours dit sama papa est rentré au Sénégal ba mu am cinquante ans six ans alentour yooyu fekk ay param gaañu foofu la jàngee ba am bagam lycée Malick si Thiès gouvernement Sénégal jël ko yóbbu ko France mu defi ay formation ñëw toute sa vie mom dafa genn université rek parmi les meilleurs de sa waa Malick Sy so fa démé so xolé parmi les meilleurs touro a ngi fa batay deuxième dans tout le territoire du Sénégal affaires étrangères moko jël directement yóbbu ko defal ko formation and ko mu commencer liggéey affaires étrangères nek boy bu ndaw nek ba numu mu wàccee liggéey loolu yàqu nëbbu non Lolo non, Boumoko. man je suis sénégalais par adoption Non, Boumoko, j'en suis fier et j'en suis fier aujourd'hui tey ma gêne a bëgg Sénégal boobu noonu sa ay sénégalais yu fa j'en suis fier parce que Sénégal bon non, il m'a adopté il m'a fait ce que je suis tey Moi, jox fulla ak fayda jox yeah je ne me cache pas de ce que je suis né. sama papa pour la pur bete bete Camara si papa Camara si yai. Wa boke len. boke. So duggee guine ko like boke, xam nga fuy bokke Wa bokke leen Camara laay l'enfant noir bu de dégg bu bi sama maamaati m'a, sama sama nijaayu papa pape. ko sama famille sama yaay pël fuuta la waaw mais aussi les Peuls Fouta pour vous raconter pourquoi seulement su ñu nee Peul ngeen daan Guinée Peul tamit su ñu nee ba ngeen pas non Peul c'était des nomades sunu maam Peul c'était des nomades am les ay Sénégal pas Peul yëpp ça ne viennent pas de Guinée les Peuls viennent du Sahel les Peuls viennent du Sahel le Niger la Somalie xam nga côté yoy, noonu lañ jóge daal di tuuru Afrique de l'Ouest su deekee de da ngeen bëgg am ay affaire, yu ngeen di mais arrêtez-nous les hein. Peuls, les Guinée. Il y a des peuples sénégalais, il y a des peuples mauritaniens, il y a des peuples maliens, il y a des peuples bissau-guinéens. Parce que quoi Tout ça là, c'était leur migration, c'était la route de l'eau. Aïe Burkina, aïe Peul, des communautés Peul. C'était leur route de migration. Il faut donner dem base. parce que si ay base parce que il faut que nous am ay point d'escale point de non ko ba après retour des hommes. Arrêtez d'être un peu farfelus L'histoire n'est pas une histoire. non Ce n'est pas une histoire de tu es de telle race, ou tu es de telle ethnie, ou tu es de telle ethnie. Mais c'est une histoire de nous tous, nous méritons une deuxième chance. Nous méritons le bonheur et nous méritons de survivre. Et pour cela, nous devons nous battre pour ça et prendre nos différents, le mettre de côté. C'est ça le but. Mais tant qu'il y a du bendom attitude, du netboko bandom bandum, wala du nakasa kandam, les autres communautés aussi, quel monde nous l'a bagnal, nous sommes nous nous Et là, ça amène ce qu'on appelle une guerre intercommunautaire. Et c'est bête. Et ça, ça nous retarde. Ça nous retarde. Ça nous retarde. Eh, eh, eh, dégg nga Konfo Imo Ndiaye Konfo yow nee na tu connais même pas toi ta propre histoire huit cent deux cent waay vrai rigolo la quoi gars yi de nee naa la ils sont allez génne ma beneen histoire fexeel ba nga yëkkat <laughs> what the fuck waaye balaa sax nga may génne sax yeneen histoire da may wax histoire Alboury Ndiaye soo ñëwee soo di expliquer histoire Alboury Ndiaye yow Ndiaye Ndiaye te Ndiaye hein du loo leen wax Ndiaye Ndiaye Gaynde Ndiaye, Sénégal Njaay Dof Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye. expliquez nous histoire Ndiaye Ndiaye Ndiaye. pour parler. Si on parle, tu vas pouvoir parler dans l'histoire Fulani comme que tu te connais très bien mais non mais ce gars là il est magnifique quoi hmm? ce gars il est magnifique il est magnifique de Bah l'histoire l'histoire Fulani nous avons l'histoire Fulani Fulani la le wax Fulani nag moom ça comprend les Peuls les couleurs et tout cela moom lañ naan bandera. comme nous, ñu koy ça c'est les Fulani. voilà les nak les Fulani, moom soo bëggee xamee que ça way di histoire l'histoire est bien longtemps Boy, fan boy histoire bobu de so fa sa Sénégal n'existait pas ah Sénégal n'existait pas Mali n'existait pas Guinée n'existait pas donc booba je vais me proclamer seulement dire que je viens de l'Ouest je fais partie de l'empire Mandeng So, de l'histoire bi rek damay baye sa histoire fulani bi rek da di dam làqatu sama histoire papa làqatu sur l'histoire mandeng ñeu andi la kanka Moussa ne la ni que baye fa les mandeng l'Afrique <laughs> de l'Ouest c'est pour nous l'Afrique de l'Ouest pour nous les mandeng de goluma lay wax de boba nak din koy dalo sa histoire voilà da fek nga xam histoire mais so toogee di mo wax l'histoire rek pour andi histoire ma tek la sur le territoire wax la ni ko <laughs> ñoo bëri histoire dama nga laaj ko ku ku gën a histoire do naan wu ndiago du jeex da fek dajewul ak susu loolu laa lay tegal nag du ne la coow njaago du jeex daa fekk su suba doon dalu amoo histoire booy da ngay nelaw xam euh, nu ma koy waxee kaaw maki xaw ma kaawu Macky xaw ma kaam mu ne comme Moussa yow Guinéen nga man de soo ma bëggee sterne da ngay sonn Moussa xam nga noo koy calculer wala noo koy contre yow nel Moussada, daal yow lii nga quoi euh, nan leen ko mën a tu es dans le vent Moussa il est il est bizarre à cerner man soo ma cerner Guinée moi lol? Cameroun là judo, Cameroun man je suis bizarre C'est mes origine papa guinéen leen nationalité sénégalais là. am Cameroun là judo. te tey tamit nationalité américain maa double nationalité juddoo fële def 22 màggee xoolal partout dans la Afrique samay suuf soo bëri te ba pare sénégalais boobu sax nga sama maam ku jur sama yaay njaayeen nag sekkeen la ku jur sama yaay njaayeen nag sekkeen pire dur waaw ñoo ngi noonu temps yi dañoo yónnee communauté noonu nee na du ñuy wax pour ma noppi ma bañ a tudd waaw te maa leen di tudd ba mu neex nee leen nag jël leen pipette paay ngen manko ko sant leen sa booba leen di tudd ni te saagaw ma seen ndey temps yi nu ma leen di waaja suñ ko xamee famille Ndiaye nag famille Seckeen bañ leen maa bàyyi rek te kii nangam ngeen di xool di jaay satan satan lu billaay wallaay kooku moom waaw sama maam moom leen naan maire Ndiaye maire Ndiaye soo demee ba naan xam nga Casamance moom Ndiayeen Kunda waaw foofu sunu village la am naa fa par am naa fa wàll nit ñi bëgg ko bëgg ko bañ koo dee ñoo xam am naa fa wàll waaw je suis partout Moussa tey jii soo ko waloon kii teg da nga koy moo tax man su may xeex mënumaa xeex dafa pal je suis Man moi l'autre. Quand tu me dit que tu es de là, tu viens là, tu viens là, man, je m'appartiens à nulle part. Man, je m'appartiens à nous me bug. Nous me bug, nous me respecter. Me respect. Ku me bug, me bug le. Waaw. Ku may xalat, ku may sorale, me jox ceur, ma jox le ceur. Man, c'est comme ça que je vis. Man, je ne me vis pas avec des obsessions pointées voilà, et fictions, c'est ay nit. Non, non, non, non, non, non. Non. Te fatigue, man, suma bëgg def extrait de naissance wala acte qui xam nga gars yi dem ay Abass Ndaw wala ay Miri man affaire étrangère laay dem affaire étrangère affaire étrangère laa man mooy loolu de sama maam njaayoon kundaala sama sama ak sekkeen waaw université Assane sama maam la sama maam nen dee Assane Seck sama maam la waaw léegi njaay yéen Kounda kii mais Seck lan mooy problème mooy descendant am famille am ay doomaraam la fi bàyyi bëri ay doomaraam maa bëri naa féq sama famille boobu noonu ak a bëri naa gars yi de ñoom tamit même chose jikko Sénégal ba leen dugg affaire de grandeur folie de grandeur wane woo kii duul di fen di teg di kii yéen dama leen dama leen dama leen kii rek ne may xaaral su ma duggee seen caay di ngeen ma may jàmm kii di naa féq ay vrai voleur de confiance voleur de confiance sama famille la baax de xamoo leen si dara sax. te day gis ay sa yaay sa yaay sa la yaa yow fay tey waajur yi làqu nen nday saa ñaana rek leen si am tey nijaay ak tante yëpp feeñ nen bilaahi ba si mambo yi ñëpp intérêt intérêt intérêt duul fen rek ay naafiq ay vrai satan nee leen man la ñuy jéem a kii di xoqatal foog rek kay kii nee naa leen yooyu jeex na fi de man ñoom ñëpp xam nen ma seen kër yëpp laa xam booboo gën a dee xam nga lu gën a kon mooy sama famille surtout ma Sénégal laa xam seen kër te loolu lan moo ko waraloon mooy bëgg mboq rek don dox jàmm Baye Fall sama mère bëggoon leen ñoom ñëpp yëgoon leen di leen toppatoo sam papa moom moom moom beneen kii la woon paa bi moom moom dafa tëggoon bàyyi suukaru koor yi ak dox mboq yi maa koy yóbbu rek pour dox mboq xam kii je connaissais tous les maisons mère bi moom weeru ko ñëpp lay yónnee suukaru koor may élément buy dox ku nu laaj sax du naan ana Moussa je vais te dire où il où il habite tamit parce que dama bëggoon mboq. mais bu si gën a neex ñoom ñëpp ñoon koo si ne léegi Moussa maamam fa la dëkk mooy yaayu sama yaay xamuñu ko te sa kook noon seen tante la wala seen nijaay duñ ko seet si li jëntiwuñu ko man Moussa sax bokk nu toog sa ba daane ne ah sunu jarbaay wala sunu sët bu baax bi wala kii kat nangam xaaral nu woo ko talunu ma déggoon wax de daa mel noonu di mbëggeel bi c'était d'un côté man maa bëggoon samay mbokk mais samay mbokk yëgunu ma balaa nag nu ma doon mën a yëg du ni que may mun a jàll ñëw na vacances àndaale naay valise am

loolu tamit maa leen koy wax encore looloo tax suma may wax gars yi naan non booy parce que exemple bi du ma ko jëli fu sori du ma ko jëli fu sori sama dama damay xool sama bopp rek xool sama famille su ma xoolee sama bopp xool sama famille xool nu mu fa dawee rek y a de quoi parler du ma ko dem fu sori moo ngi noonu j'en ai plein si sama biir famille ay doomaraam laa lay tegal ay vrai doomaraam nga koy xool nii nii nii rek su ma xoolee nii su ma toogee sama famille nii xalaat nii rek benn scénario wala ñaari scénario xalaat ko nii cinq à dix minutes j'ai un thème de deux heures de temps boo xam ne je a me défouler a defule me défouler te ku si ñëw da nga siy gis sa bopp ku si ñëw da siy gis sa parce que loolu la ñuy dund ñun ñëpp Sénégal loolu la ñuy dund billaay loolu la ñuy dund bii Sénégal loolu laa la yoon xam ne bu doomeraam laa yoon eh eh jama noir Diagne wu yaayoo jama noir amul valeur jama noir musuma ko amul valeur kenn ko jënd loolu fifty fifteen lay jar fifteen waaw jamaa bu ñuul moom amul valeur si ay gént rek lañ koy mën a jaay waaw waaw soo bëggee soo bëggee jamaa da ngay weex waaye jamaa day melax de waaye jamaa nga noir ba pare nag jaañ mooy jaay jamaa noir jaay du doo jar de loolu moom tee ngaa toog rek uti ji leneen doo gaaw a jar jamaa bu ñuul moom amul valeur loolu xam naa sa xar nga koy takkal rek pour décorer ko wala ginaaru kër gi wala sama xaj bi sama mën naa ko takkal kuti kuki décor décorage wala ah Noël Noël a ngi ñëw décorage de sapin sapin de Noël waay leer laa tey instant gii nii bàyyi Sénégal dafa toll jamono joo xam ne suñu ñëwulee teg dëgg commencé wax dëgg nekk si dëgg bàyyi sunu yenn affaires yi teg ko nële bëggante te yàlla tax ay doomu aadama kese non dëkk bi du dem de billahi wallahi dëkk bi du dem de ah waaw jama nee na lan telle famille tel rejeton tu as raison tu as raison de ah waaw telle famille tel rejeton kay ça dépend nag de quel œil tu regardes waaw ah, parce que nee quand quelqu'un parle il refuse l'effet boomerang xam nga ce qu'on appelle l'effet boomerang moi, dans dans dans cette life goes around comes around now it's dependent on what eyes you look it to if you that shit just come into one one way to me is okay mais si vous regardez, tamit en tant un diamant noir sans valeur tel fils tel rejeton donc c'est tamit say c'est waajur amuñu valeur maanaam ni ko yow yaa un diamant noir sans valeur donc vous yo, ah tel tel rejeton tel les ça dépend de fu ko waxee rek la amé valeur rek nu ko déggee da nga bëgg defante tu veux tu veux insulter jappal ni que saga bo saga mu dem mën na ñëw saga day dem di ñëw légui man nak comment je suis comme avec ma famille c'est vrai moo tax ma dooma raami mu ñëw tok ni nag ba seuss nak bayiwuma leen dara duma leen may tous c'est vrai moo tax ma wëlbatikuwaat encore may dooma xaraam bu ñëw ruuxu leen c'est vrai y a pas d'inconvénient et je le fais très bien mais yow en tant que une fille sans valeur en tant que une fille folle imagine tes parents donc parce que ah comme ni ma la ko waxee rek tel le fils tel le rejeton non mère non kay ah donc tontu meer la sama gars yi de da doo neex nee na yaa ngi mer de nit da ngay wax ba pare mu wax la dara ne la doo ko tontu soo ko tontoo mu na la yaa ngi mer comme yow ba may tontu meroo woon comme yow ba may tontu meroo woon quoi donc léegi man mii ni tontu sa wax man ma mer waa merci beaucoup comme pare naa si wax gi bàyyi naa mer bi maa ngi dem continuer yeneen wax voilà maa ngi dem continuer yeneen wax balaa beneen balaa beneen xam naa moom comme que fii moom si mer nga ma commencé su ma la keppaatee nga dugal ma feneen boobaa moom na nga dugal damaa dangaa dóor benn ma dóor benn rek nga ma maa ngi mer yem naa fi duma ko soril ma baal naa la dégg nga yem naa fi xam naa ni ko su ma continuer ak yow moom nga fëlal ma feneen nga jaay ma léegi te lekk te jërëgu ma xaaral ma continuer samay bagage waxtaan man comme sama gars yi comme ni ma ko waxee woon rek mooy loolu quoi affaire yi moom jamono jii nu toll suñu defulee attention bu baax nu xool dëkk bi xool bu baax lu nu exposé ak lu nu nit ñi di wax commencé wax dëkk daal di concentré wu bàyyi dëkk bi du defaru de dëkk bi du defaru tegal nu ay xulun nu jàkkaarloo si kanam télé bi di di waxante ay conneries naan du ñuy reetaan loo ay nit comédie loolu instant bii nii amalu nu njëriñ yóbbu nu fen mu El Hadj Ndiaye boobu bandum attitude lay jaay affaire de ne bokk bandum ay affaire de mondialisation la ñuy jaay jël ay affaire kii naan ay kii Macky Sall lay jàppale moo tax it telem bi ba mu fi toogee ba léegi ba Macky Sall toogee ba léegi telem bi tegatul programme yu yee nit ñi tegatul programme yu ànd nit ñi xel tegatul programme yoo xam ne day jëriñ Sénégal il occupe les si lan si une blague ree comédie ay affaire de foo yooyu noonu la programme am yooyu tegal nit ñi ay émission Hmm? ay émission yoo xam ne ni que ay mais xaalis ay wone xeesal ay affaire yu ñàkk fayda ñooy daw si émission yi boobu ba léegi nag chaîne am bi bañ na refuser catégoriquement wan nit ñi lu nu mën a dégg wala ay affaire yu nu mën a jàngal nit ñi ñun nag ñu sommes laa assi nekk fii di konkon sooy wax nu naan la ay affaire kii Macky Sall toog na jël tous ces bandera bi encore duñ koy wax teg leen si kaw nguur gi ñuy emmerder nit ñi di dof doflu ko si wax mu saga la jay la ay affaire de ki ñom ñoo fi nek di saga nit ñi de legui nak wax gi moy day clair gaay so waxe ñu na la non c'est pas tout le monde ay affaire de ki nous aussi on n'a pas parlé de tout le monde on parle de yii feeñ comme que nak yéen dem ngeen ba xam ni que c'est pas tout le monde wax leen nak ñom ñu wañeku me wax gi mais en attendant mom du leen may dara du leen may dara lolou mom moy wax gi lolou mom moy wax gi du leen may dara dara dul lañ ko may tey jii kilifa kilifoo diine yooyu ngeen di wax yu toll yu jàpp nit ñi di leen téye en endoctrinement si ban rabaas leen bokk balaa rek ñoo sori kilifa diine yooyu noonu toog si bopp yi di leen endoctriner gëmloo leen ay caabi àjjana nen xool fal leen bokk voilà avant wax gi di gën a sori da ngeen di dem ngeen xool foofu noonu kilifa diine yu endoctriné yi fal leen bokk si si lan la Serigne Touba bala sant bala la ñoom ñëpp dem leen ay cousin leen lépp c'est la attitude lépp ay fulaani leen rek c'est la attitude ñoom ñëpp mooy loolu bandiraabe fulaani ay affaire yooyu noonu come on down down I want you down come down dama ngeen wax ko dama bëgg rek ngeen comprendre wax gi léegi à part sax dooma xanaa am yi toog si bopp ni ñi di saaga di wax ak maki Sall ak tout son équipe ba si suuf tous les côtés nous sommes déjà ñun Sénégal dañ <laughs> dem rek som sommes fulanisés de yooyu <laughs> gars yi wax ni kii di tëb nous sommes déjà fulanisés bàyyi nous sommes fulanisés si bopp bi de ñooy tëdd duñu liggéey ñoo tekki ñoo yore lépp léegi suuf si moom Sénégal moom gars yi suñu paree moom terrain ku koy jënd moom xam nga bu njëkk ba terrain da nga doon dem nga gis euh, lébu yi foog nga dem gis lébu yi nga wax ku sant Njaay wala ku kii nga xool si sekkeen yi lébu yi xam nga mooy loolu quoi soo dalul si sekkeen wala nga daj si xam nga ah, ah, ah doo am mais léegi Sénégal dinañ dem ba nga am ni ko soo bëggee am suuf <laughs> da ngay dem nga xooli ji si si sàll yi sàll yi ba ay ba ay sàll xam nga mooy loolu de Keita ah eh, waaye yow ay ay sant yu bizarre Haalpulaar yi daal ngay dem gis ñooy moom suuf si waaw suuf si moom léegi moom transféré nañ ko de voilà suuf si transféré nañ ko loolu moom moom na na leer tetu gaay na leen leer de <laughs> baax na nag soo waxee rek gars yi commencé di di ah non waaye kenn nangam parce que tout trop pacifique duñ lay yuuxu waaxu la da ngay wax rek nu waaxu la si wax. Wah, ué, wah ué, sou cadê feio, tá me engatelo aqui. De coragem, dá nem não, aqui nem nangam. Fé que aí dula, aí dula, lepa aí dula, lei wach, nhom do ni wach. Dara, dara, dara, dara, dara, nhoro lensi. Nhogi non di dundu sa kaw. Tok sa kaw di si dundu sa waxe nu yuxul. Ba pare yow nga bëgg wañi ko. Ay dul, ay dul. Tok len fofu rek. Nana hmm. hmm. la man, dama say tok sa degg sa ay nit ño xamni yor ay sante. Comme Ndiaye. Ndiaye, yo ko Elhadj Ndiaye, Elhadj Ndiaye duñ ko wala news billahi duñ ko wala news ah njaay njaay bi fu ko news duñ ko wala news nangu njaay bi nga dégg ay nit ñu andil la sante nga tek leen sa ab lébu wala nga tek leen dara te yo day ñew na la bandiraabe la quoi leen wala news leen wala news ay vrai imbécile ay vrai imbécile billahi waaw jama jamaa alma pare guma je suis en train de discuter je ma de jom am temps ba bëgg je suis concentré quoi je suis en train je suis en train de parler mes choses quoi voilà voilà ba ba ñaanal sama mag ñu xam nga ba nu ma ñaan xam nga voilà en tant que comme nous tel la famille tel le gosse le rejeton en tant que ñaari rejetons, on va se gérer. Il n'y a pas de problème. En attendant, écoute-moi bien. Après, on va se rejeter les choses. Voilà. Et je continue mes yota. Hein. On doit être encore plus soudé et plus ouvert. On doit être encore Encore une fois, on a un problème avec poulet. Il y a une affaire, mais y a un problème avec yenn doxali nii moom man dama koy wax am naa ay copains pulaar am naa ay copains leneen man mii sa mbokk la leneen ak leneen mooy loolu mais léegi nag moom ça ne veut pas dire lu lépp lu ñëw rek dama koy nangu man gëw loolu voilà gëw ma loolu parce que am naa samay problème ay wolof fa ma jàppale ma am yeneen problème ah ay lébu jàppale ma ame kii ñeneen a fa ne samay mbokk Haalpulaar yi nekkuñu fa yaa ngi comprendre wala samay mbokk pël yi am naa problème sama àdduna c'est d'autres ñoo fi taxaw jàppale ma am naa sa problème tubaab wala juif yooyu noonu ñuy wax tey di di dinaa nangam ñoo xal seen tànk tubay ñëw taxaw sama wet su épaule ma soutenir ma ba ma génn sama problème donc nag tey jii nii man du ma ñëw di naan damay ekki ekki nangam non je donne chacun le respect qu'il me donne et l'estimation qu'il estime à mon égard mais nag on discute en général et on met les choses sur la table en tant que des êtres humains moo tax comme ni ma koy waxee rek wax yi ak yenn wax yi moom mënul di dañ du dem ay affaire kii dañuy ñëw nu teg koo waxtaan ko waxtaan ko nag si biir lan mooy lan si xel si xel pas c'est parce que rek alpulaar laa wala paa parce que rek pël laa saa waay wax na si pël yi wax ak ni nangam damay naaw no non non non non man gëw ma loolu parce que gis naa ay samay mbokku pël yoo xam ne ñoo gën a bon sax ay nit ay olof yu ma xam bàyyi loolu laa gëm parce que dama am dama dox man dama dox dama dox gis ay nit gis ay nit su nekkoon sa mbokk kese kese kese ngay wóolu ngay gëm billaahi wallaahi doo da ngay génn soo doxee da ngay gis nit ñoo xam ne woon ni que doo musa yaakaar ni que bis boo amee problème dinañ la taxaw doo ko musa yaakaar comme boog nag soo demee nag ba ngay am nag looy expliquer hein bala ngay dem ba ngay am looy wax il faut parler en général en tant que doomu aadama en tant que doomu aadama man je me suis retrouvé dans des yoo xam ne ni que du sama dëkk du kenn su ma fa naroon toog ñëw rek naan non bandinaa bi wala wala sama mbokk pël wala sama mbokk susu yi kii nii rek bàyyi dama maa fay des yaa fay dee yaa fay des boo ma ñëw xoolal ay waa dëkk bi si boppam ñooñ nga ñooñ ñëw di dem moytu ñooy ñëw taxaw sa bras droit wala sa bras gauche xoolal épaulé la soutenir la fexe ba nga génn si problème nga taxaw léegi yow tu vas te comment commencer di wax tu ne peux que delloo ñooñu njukkal nit ku la yëg nga yëg ko ku la yëg nga yëg ko ku la taxaw nga taxaw ko moo taxi nag man su may wax man je parle de ce man je ne suis pas ethnique ethnique wala ay affaire ñëw naan non damay tëy non je ne suis pas dans ça man nit laay gëm nit laay jàpp nit laa kii sama propre famille comme nous ma leen ko waxee léegi maa ngi leen commencé di rek c'est pas parce que kii nangam moo tax maak ñoom ñooy kii dinaa respecter parce que c'est beau d'avoir une famille mais seen doxalin ay doomaraam leen comme ni ma koy waxee chaque jour dama ma famille une bonne famille boo xam ni que mooy loolu avant suñu yenn maam yi sax di gaañu mooy paa yi ba ñuy dund la famille était bonne que yi ñoo ngi doon saafante c'était un peu grand, les gens étaient regroupés. Mais après que pas pays gaañu que yi dañoo tas parce que là, lu doon cultiver aussi si xolu nit ñi doomu xaraam commencé à mettre à l'appui te amul benn mag buy pour canaliser l'affaire et c'est parti en couille c'est parti en couille mais une fi bàyyi woon sax yu ne la nekk nekk puso yu ñëw ko ñoo njëkkoon nekk doomu xaraam yi ko diviser et tout est parti à couille tasaare nijaay yi fii tante yi fii këru famille këru maam yi tas coow li nekk fi ñu ndaw ñi nag ñu nekk ay jeunes yoo xam ne si loolu leen màgg si diggante kër tonton kii tante ak kii tante ak kii ba pare nu foog ne xale ngeen nag dof ngeen soo rombee dégg fen yi kii kii fenal lii kii kii fenal lii kii fen leen noonu leen màggee moo tax ma ne la man nag avant ma doon génn bay def diagnostic naan maa ngi koy xool si Sénégalais bay am lu may koy xool sa alentour soo ko xoolee sa alentour tu as noonu la ñuy dundee bon c'est là moo tax su may wax on se trouve on se cale on se capte on se capte donc àdduna dafa simple àdduna dafa simple ku la yëg nga yëg ko ku la yëg nga ko tey jii nii ba si am na sama benn copain moo ngi noonu romb sànq di wax ndeysaan maa ngi nii di ko gis moo ngi si biir sama benn copain la boo xam ne ni ko xamante ne ba Sénégal alpulaar la sax ndeysaan Ousmane Ouz yàlla tey def na ni ko tey ay gaan lañ tey yàlla def na ni que tey ñoo ngi communiquer ba tey ñoo ngi ànd jàppante nekk ay gaayan di dox di partager yu bëri te ku nu boole ku tax sax nu xamante wala ku tax sax tey ji nu nekk gaayan yàlla xam na ni ko ba nu gëjee wax yàgg na est-ce que yaa comprendre nit dina tax sax nga xam nit te nit kooku noonu sax tax nga xam ni après kooku ngay gën a gaayanante wala kooku ngay gën a yàggal sax ko kooku tax nga xam ko est-ce que yaa ngi comprendre wax gis donc c'est pour dire que c'est pas parce que kii nangam mais lu la nit ki jox lu la nit ki offrir wala du nit ki ñëwee loolu moo waral tey seen ànd yàgg wala ngeen mën a dox bay ànd donc dëggu bu nekk ci biir la dëggu bi mooy dëggu dëggu bu nekk ci biir la àdduna du ay affaire de parce que yow diw lii nga man lii laa wala ànd ñoo bokk ethnie wala ñoo bokk lii danoo wala rek kii di aller faire un combat aveugle bête quoi. Hmm? On doit faire un truc aveugle comme ça, quoi. aha Cheikh Thiam xaw ma caw xaw la nee del xalaat bamel. Lolo, mat a xalaat gis nga bàmmeel boobu non, ngay wax mu nañ koy khalat. Lolo, wala, a mata khalat. parce que bamel. xam nga bàmmeel amul ethnie xam nga bàmmeel amul faal si géy dara si lol. xam nga bàmmeel non donc nag yow ba nga demee ne ba nga ne del xalaat bàmmeel loolu bépp doomu aadama mat des na di ko xalaat wala mate na di ko xalaat wala di ko toogee soo koy di xalaat saa su ne décision yu ngay def day nekk ay décision yu gën a humain yu gën a humble parce que di nga si xalaat ni ko bàmmeel kat du poids yow amul sant amul tur te dara du la fa topp donc di nga gën a yenu sa xel amul ni que ah bandiraabe am bu soo gis bàmmeelu bandiraabe bàmmeelu lébu bàmmeelu ne non non bàmmeel la donc bàmmeel boobu noonu ngay wax lu mat halata lu mat a la xaméwul couleur de peau xaméwul appartenance ethnique xaméwul appartenance religieuse sax yoy no nek ci souf xaméwul ñom da daal ñoo def seen liguey donc lu mat a tant que yaa ngi nak nit di nga ko en tant que nit nu mu la jappé mais pas en tant que parce que ño bokul yi wala ño bokulé parce que bàmmeel lu am solo nga wax non. bàmmeel lu mat a xalaat lu mat a xalaat la lu mat a xalaat la moo taxit comme nu ma ko waxee gaan nous sommes dans un monde boo xam ne suñ ko bëggee defar jamono ji mënunoo def lenn dul commencer par dëggu commencer par dëggu suñu commencer dëggu amour bi day génn naturellement te boobu amour boobu noonu di génn day nekk tamit amour bu dëggu naturellement léegi amour boobu noonu tamit su dëggoo ba génn lu siy ñëw di lalu day ñëw naturellement parce que dëgg ko ji dëgg bi moom fu mu ñëw le reste on en a même pas besoin du son day ñëw naturellement nii nii nii nii parce que lan la ji njëmbat bi mooy lu nekk si suuf jiwantal bi moo baax lu waaw dëggu moom lu mu commencé dëggay mujj mais fen lu mu sumb tamit xam ni que fanee mujj am solo ñun Sénégal si on veut le reconstruire wala nu que nous def nu commencer sur lolu parce que l'autre que tout le départ jusqu'à présent c'est que mensonge Sénégal y a rien d'authentique ba tout ce que on a eu jusqu'à présent qu'on nous raconte n'est que mensonge on n'arrive pas à se retrouver entre cette réalité et ce qui a été manipulé tout notre histoire, jaar notre waay nu politique tout tout tout tout tout que mensonge rien n'est clair loo jàppoon ba foog que sa Japon nga waaja soo demee ba si bi nu mbas la ne la ni ko woodu oh, donc nag ñun si on veut commencer quelque chose à faire quelque chose on peut pas venir et prendre des déchets nan si loolu lañ bëgg de jël continuer defar dëkk bi mënul ne ko wax nu la non jikko yi kii li len fi fekkoon yu fi mam yu baax yi bàyyi woon moo tax toujours on doit s'arrêter faire une pause tam def autobiographie def une synthèse de tout ce qui s'est passé jangata ak xool la ñu andil quel a été le bonus quel a été le plus fan la ñu yóbboo ki nangam pour que nous meuna defaru wat avancer et quand on se rend compte on se rend compte que rien donc là on doit mettre un point et commencer à zéro parce que ceux qui avaient commencé à zéro sont noo koy wax y a vingt ans de cela tey ils sont en avance pourquoi nous, on ne veut pas tout casser pour reconstruire C'est ça le truc. Parce que l'ini, par exemple, je vais vous un Nord encore, un exemple. Pour toujours nous même wax sama ma m'a am ak mom histoire Nous, tok ni ni wax mako kay wax ni muy dof dof nous, di expliquer Nous nous, papa nous, bobu nous, Gabon nous, nous nous, Sénégal nous kër bu Nord Foire nous, témoin la woon mooy soo doon jënd kër yi kër yi cité yi bu njëkk ba Nord Foire jàmmalaay ñu fa jëndoon kër temps yi ñu fa nekkoon yëpp kër yi ñooy jënd may kër témoin lan la jox ñu fa jëndoon ñëpp seen kër nag kër témoin en temps bi nga ko toj wàjjee ko tabaxaat ay kër yu bees parce que kër témoin xam ne nu mu demee kër tabax la fat-fat la nii rek pour présentation soo si dëkkee après cinq ans six ans mu commencé fissure andi la ay problème di wàcc paa bi noonu leen def affaire bi kër gi dëkk si kër gi kii ba ñu demee Gabon bay ñëw ba ñu dellu see kii fekk paa bi que ma ne ko ah paa bi noonu day changé këram parce que mooy loolu day ko bëgg defaraat ñu dellu si paa bi dugal boppam si benn gàmm boo xam ne mooy loolu da abord bëgg a jël toute une famille ay ces choses créer ay affaire dundoo tabax ma ne ko ah papa mu ne naam mu ne ko gis nga lii nii nga bëgg a def nii xam nga la may wax gi mooy kër gi wàccee ko raser ko à zéro nga recommencer waat dès la fondation nga commencé waa tabax kër gi ak fondation bu dëgër tabax bu dëgër kër gi jub moom moo paa bi il a renversé lu ma ko parce que xale la mënumaa wala dugg si boppam te instant boobu il voit difficile de faire sortir toute la famille wala ma ne ko man ak sama rak suñu yaay am na ay kër suñu kër maam a ngi mën na noo dem dëkk suñu kër maam ku si nekk yow nga dem ut sa benn néeg fenn nga toog fa nu defali mu nekk defar bu jaar yoon ba fu mu yem sa après lu nu am nu teg ko si moo nu xam ni que lii c'est solide moo gën paa bi il a refusé dem jëli suñu famille ay nit ñu ko doon wax naan ay maçon leen jëli jee leen Thiès nag booboo gën a neex andi leen loger leen nourri payé hein nourri logé payé ba pare gars yi xam nga leen gën a def gars yi duut ko gars yi teg ko dil bàyyi gars yi dóor ko presque waaye douze millions yoo xam ne ni que suñu ñëwee wan la ni que lii mooy douze millions da nga naan non non non non te xoolal bilan wu kër R plus 1 bu mu jug temps yooyu noonu bu ñu tegal ko sa rez-de-chaussée neuf millions dix millions ko laajoon paa bi doon kii nangam si ay réflexion ay nit ñu mu wóolu naan ñi ay mboqam af andi la di leen nuru di leen kii gars yi ko tek ko dil bàyyi kër gi nekk fa boo xool nga gis xaaf bi la modifié xaaf bi te dóor na si 12 millions may wax paa ki kii nangam tey jii nii may wax ak ku romb noor fois su la wanee kër kër gi daanu na 12 millions alo. plus d'autres 20 millions yu mu dugal fen kenn xamul c'est à l'eau maintenant kër gi daanu na fonda eh dal yi di wadd affaire yi di fiir ma ko moo te tey ban moo si gën neex mooy dem na léegi bàyyi nañu ko suñu loxo su ma déggaloon ba muy wax ki di au moins fondation na ko defal na ko ba fu mu taxaw lu mu nuy bàyyi suñuy loxo ay finition lay doon. du ñuy ñëw nu finir affaire bi mu nekk lu dëgg noo xam ne au moins faa bi defal na la plus plus difficile nu finir ko ñoo toog mais léegi on se retrouve dans cas boo xam ne lii a ngi wodd en chantier moo ngi en ruine teg na ko su suñuy loxo yàq na s xaalis gu bëri léegi on doit tout à zéro. Quand ah, ils vont te regarder d'un côté bon histoire bu simple il il faut bien le faire faire. Il faut bëgg faire. dëkk bi xalaat ba Il tay fondation faire. la ñu yob fondation yu baaxul kër le faire Il faut bëgg le kër gi faut ñu mabal ko ñu mabal ko et on recommence sur des bases solides et là maintenant di xam kër gi ñu samp nan lañ ko sampeeg si yang mais ñun kër gi ni sa sampunu ko lolay wax gi sénégal ñun suñu wax sax nan suñu kër la kër gi duñu ko sampal dem ku ko samp mo xam nu mu sampo muy kan muy do gol bob gaay di bañ tubab bi tubab bee samp kër gi samp ko defar lepp mu baax dem jëlé ji ab dooma xaama do teg ne am topal ma fi donc kooku mënoo leen ko gëna xam këram samp ba mu kay samp mo ngi japp ñenn di leen tecc ci kasso bi di doxantu mom mo samp kër gi léegi ñun suñ ko bëggee defar bëgg see comprendre dañoo wala a tas lépp lu mu defar ñun ñu defar ko ñun suñu defar bopp samp ko comme ça ñun ñu xam lu ñuy doxal lan la. ñu xam lu ñuy doxal lan la mais non nous sommes dans une connerie quoi sama gars yi comme ni ma koy waxee rek nous sommes toujours dans une connerie gënalante jamono ji comme jàmbaar Njaay nu mu ko waxee c'est vrai gis nga jamono ji nii koo si xëccoon léegi te xam nga la bon jàmbaar tout le monde a un prix mais ce ni que sénégalais nos yomb sénégalais sont leen tegoon si marché di leen jaay moom mooy jaam yombo, yomb sénégal ba di ñëw di jël si jaam au moins c'est une yi du leen jaay mais sénégalais ils se sont donnés gratuits booboo gën a dee sénégalais su école marchandise mooy bu gën a yomb sénégalais jënd ko dafa sénégalais jox ko 10 000 mu jar mu jaay ngorom moom la ñuy jaayee carte élection 10 000 ñii 50 000 ay sagara wecc seen ngor jaay seen futur tayle seen lépp ay tañ taw vingt mille cinquante mille piis moom nga leen di jox nu tayle seen avenir seen futur ak seen futur doom ñëw toog nag foog na ñoo rey gaynde di la rey Sénégal a yomb yomb yomb yomb yomb yomb yomb ba nga xam ni que non non bàyyi Sénégal beneen affaire Sénégal beneen affaire nee naa Sénégal bàyyi moo ngi noonu moom mooy moor yombale mooy moor yombale

ñeneen ñeneen dëkk ñu dem yëpp danoo ñëw fekk fa ay ay roi ay buur yu métti andi leen fa guerre bu sadik moo tax ñemeew nu leen woon Sénégal rek moo tax ñu tuddee ko teranga Sénégal rek la tubaab bi doon dugg on les accueille à bras ouverts gars yi ñëw ñu jox leen logement ñu toog ñu am si xale yi laal moo tax foofu le premier épidémie métis jóge si en Afrique Cap Vert yëpp sénégal yoo ko peuplé Cap Vert ba mu fees sénégal yoo ko peuplé ah, waaw wow Cap Vert Cap Vert sénégal yoo ko peuplé avec l'aide avec l'aide des ngeew suñu métti suñu gars yi doon bañ yëpp ñoo dem Cap Vert moom leen sànni foofu ak a kii yi tubaab yi doon bañ bañ a yóbbul seen jabar yi xam nga tubaab yi doon jàpp euh, jaam yi bañ a yóbbul seen jabar yi wala lu ñu fi nekkee woon xam nga moom mooy loolu quoi doon koy jël rek daal di koy yóbbu jël rek daal di yóbbu jël rek yóbbu mooy loolu. on a des problèmes on a de sérieux problèmes on a de sérieux problèmes laa leen di tegal nii nee naa leen gaañ nen dem rek. ñun sénégalais yi ñun du wax ni rek mais xoolal à l'époque de l'esclavage on était on était gratuit ñu danoo ñëw rek ànd ak gars yi ñu décorer ñu jox ñu mëkk doom noonu leen ay yenn mëkk pour ànd ak ñoom di leen protéger ñu soloon ñu ay mbaxane dëgg sa ñu leen di woon yeneen colonie yi fu ñu nekk ak camp yi ñu ñoo nekkoon snitch yi parce que loolu tàmmoon nañ ko algérien depuis jamono Algérie ba Algérie moo njëkk andi naan tubaab Algérie moo njëkk andi traite des nègres Algérie moo njëkk jaay jaam jàpp nit ku ñuul di ko jaay doon ko yóbbu à l'Égypte antique pour ñuy tabax pyramide yeeg affaire yi di def ay commerce algérien yi la woon ñoo nekkoon premier pirate de pirate des mers commerce international yóbbu nangam hein non lay lay la lu leer laa lay tey gars yi nekk fa kii moo tax ba tubaab bi ñëwee nu xamante rek ànd sénégalais dellu si mën-mënam kii def après nu pare encore ñu jël suñu rue yëpp tuddee ko seen bopp Pompidou De Gaulle Tchonk la Leclerc ay rue rue bizarre pour nu ñu nag ñun ñu ñëw toog c'était facile de waa bi kay déggal ma ñun xamante ne sénégalais nag soo waxee mu nekk fii nii ah non kii ni nanga mën na la non non Baye Fall soo demee rek Sénégal su noo toog nu nëbb nu histoire ñun sunu histoire leerul nu sax bu nu xam yeneen histoire me mais naa soo génnoon daan naan lu naan la dawme soo àggoon dans le dawme nga dem tok talk l'histoire du wax la vous allez entendre des grands rois de cette époque qui ont bastonné bien bon les bah, les colons à l'époque Nous wala maison des esclaves yu fa Burkina hein c'était chaud maison des esclaves mais kenn dou fa gars nañ fat allemand tabax des c'est les allemands mais il dama ba Gabon ay y avait les capitaines Chorare. Bah, il y avait des capitaines ay genre ils étaient déterminés pour leur peuple avec de la magie et des et des armes sur leurs mains prêts à se battre bah, ils ont fait souffrir là ay chacun, ay Chaka Chaka Chaka Zulu eh, ils se de zistwa ils gay, sont battus, batu, iso nike le blan avan ke toubap se difon toukou bodi Ils ont souffert, ça na pas été de la tarte. ça na pas été de la tarte. Mouta bon fò dougè, c'est parti avec un respect. Mais Sénégal, c'était te porte vacante. Mouta nou nyon sampan nou fò, Oui, oui, woy, woy, teranga, oui, la teranga, vous êtes... nous, on était les cons. On était les cons de toute l'histoire. Jamval. jàmbaar njaay nooto waay damaa génn keroog vidéo gis booy bas ju wax lu muy wax neexuma ma daal di xool mu tourné mi xaste may bañ a nuroog booy ma dindi ko gisa ma wat lépp mu weex ma gën a nuru booy gars yi gën ma yëpp xam nga xam saa yi damay booy bu ndaw am naa ñu bëre ngi xool naan booy bii ni kanamam bi am na lu si manqué quoi waaw mustaasu dof bee fi manqué ke ak sama sama kii tool toolu poobar bu ndaw bu ma doon kii ñëpp laa dindi teg gën a nuru booy su ko defee ma mën a wax ak booy vingt ans yi xam nga booy vingt ans yi nu mën maa saaga ma bañ a am gàtte xam nga booy l'an deux mille yi su la may jàpp booy l'an deux mille du ma sonal du may xorom rek booy l'an deux mille du maa xorom ak xorom ak xorom ba nga xam ne ku ma si dugg page am xool ko damay rus xam nga dafa bëgg dindi affaire yi quoi nu xaw a mu mën a waxtaan ak ñoom xam nga waaw c'est pas méchant quoi waaw waaw Béhanzin ndeysaan ah j'aime quand je vois l'histoire quoi wax nga dëgg de le roi Béhanzin le roi Denis Rapochombo, hein? non le roi Nchoro Re non assez ah, des gens yoo xam ne di ko bàyyi seen histoire ngeen waloon dem déglu ngeen xool nu nu ak tubaab yi si biir les forêts amazoniennes wala les forêts tropical nu nu def ak ñoom si ndox beeg ay kii non non non non non non yéen gars yi yéen yéen yéen da ngeen di si boobaa da ngeen di pare sax ngeen ne non nekkete lajoor ay lajoor yu ngeen di wax ay kii c'était que des des petits des petits non non

léppum fétiche la laa la wax tubaab bi di dof naan what the fuck pour nga yónni ko fa ñaari yoon du dem day xalaataat naan non fa da ngay dem di gis ay fas yu daw si ndox ak xam nga le roi Denis Rapaciombala il le fou sa gars te da leen doon dóor ba pare nangu seen tëm donnee leen ëppoon galon da leen nokk ba pare ku mu jàpp nangu sa galon taf ko boppam moo tax à la fin mu paree moom bala da ngay gis lépp galon la mooy genre roi on day taxaw li galon la nga foog ne ko tubaab ko non non mais tubaab bi mu nok nangu seeni galon galon ko bopom non ñooñu ay sadique la ñu woon dama je te casse la gueule je te prends ta récompense ta médaille et je me médaille ça c'était des vrais grands-pères ça c'était des original grands-pères real grands-pères tëg moo tax ba da ngay dem gis seeni un ay der lañ ni koy baye mais ñun non non c'est c'est bizarre quoi bizarre très très bizarre ñu yàlla jàppale rek yàlla jàppale yàlla jàppale sànq yi nii daal loolu laa mooy lu ma leen di wax di lay ñaanal dinaa leen nen boole nen bokk nen nekk nen nek do ba bi sey benn jour dinaa ñëw si histoire boobu Je vais les ramener cette histoire juste pour les toucher le cœur, quoi. Les montrer que on a eu des vieux grands-pères, comme les que ils n'attendaient pas de 10h à 14h ou de 2 tu pour se chauffer les babilles. Non, ça, ça partait en couille en moins d'étincelles si tu, tu, tu touches l'Afrique, mais tu te sillonnais dans le mauvais côté de l'Afrique, on te voit que tu racontes de la merde. Ça part en, non, non, non, non, non ça partait sale comme nous ko ça devient sale ba que sofa delo yo ce commandant su la si bato naan le tu réfléchis de ngay bu baax balaa ngaa sa tank wàcc fa gars yi la non mais ñun Sénégal c'était les portes vacantes comme porte saloon xam nga porte saloon porte portes amul caabi da ngay pousser mu ba tay c'est des portes vacantes Sénégal ba tay instant may wax ni ni, ni, ni, ni, ni, moo raw porte saloum jàppal ni que à force de kuy kuy benn buntu ba wadd na léegi benn la dese léegi xoolal tame la tame Baay Faal du la koy firndeel du ñuy jàpp léegi ab ñag oh non kii nangam lalalala ñu ngi koy bi denee ne du nga ko refoulé nii mois prochain saa waay rombat lo koñ ba naa la asalaamaaleykum maire ça va asalaamaaleykum nga naan du kii gars yi moo tax tamit booy tamit il sort comme u Sénégal moo raw tame moo raw tamit laa lay tegal ni diya nan wax leneen nan wax leneen voilà léegi daal su ko defee am maa leen di jéggaluwaat encore si wax gu metti gi yëpp dinaa leen yàlla nu yàlla jéggal ma bawle nu jéggal nu ñëpp te def lu gën si ñun ubbiwaat suñuy gët jubanti nu da daa di nu baal suñuy baakaar te daa nu def nag ay mag yu am ñam si barkeem mag jëmmam naan leen waaw Salam, nu def nonu ba su benen waxtan benen live benen video. ba pare nak nan nak waw pa yek mairie Yo, can you stop down there? Shut up. Nah, enak ya yàlla nu yàlla jéggal nu ñëpp naan paa yi waaw mag comme waaw man damaa xaw a ñàkk jom tuuti nag waaw sama mbokk moroom yi ki boyu réew yi nii waaw man moom nu ma ko waxee mooy loolu rek j'aime les petits parce que gars yi du lay topp ba topp di la saaga rek foog ne ni que wala di waxee foog ne que yow leen kii wala ñoo la gën a ñaaw làmmiñ jamaa jamaa jamaa sans valeur ana nga pare naa am naa sa jot léegi teewu teewu jamaa sans valeur où sont les cafards hein quand on parle des choses intéressantes pour le pays vous venez faire la diversion comme ça là vous croyez que vous êtes intéressant et quand on a fini maintenant pour faire une petite diversion qu'on se parle en tant que comme il a dit, rejetons malsain ou je ne sais pas quoi. Vous n'êtes pas prêt de venir faire ce que vous avez commencé, quoi. Et là, vous disparaissez comme ça sur les trucs, comme des petits larbins, là. Vous êtes là seulement pour foutre le bordel. C'est comme ça. Les gens travaillent et vous, vous êtes dehors en train de taper sur les tam-tams. Non, non, le monde est Pendant que certains se tuent à essayer de travailler le pays ou bien à trouver quelque chose pour développer ce pays, il y a certains qui ont le temps de s'amuser aller suivre des pauliches, des Paulais ou bien à venir ricaner, ricacaner ou raconter de la merde. Voilà. Quand on parle, ils essaient de détourner les gens ou bien divertir les gens. Maintenant, quand la diversion, il est de temps ou bien de droit, ils disparaissent. C'est comme ça que vous allez aller au paradis. Eh? C'est là que vous arrêtez les vermines d'en bas, les terres, les vers de terre. Point. Ça va être votre seul salut. Hein? Non, tout inar, elle des une il. Tu parles de elle. Beaucoup ces elles sont des îles. Tout je te donne un petit secret. Souvent, j'aime pas beaucoup les dénoncer leur nom au départ. Je m'amuse avec eux, fin, mais ils sont que Sandy Tour, ou Sandy Tour, nous savons que nous mais je vais te donner un secret tout inard. Apprends à bien écouter les gens ou bien cherche certains audios. nga man me deug, deug, nga Donc quand tu entends ces gens ou bien tu les as déjà entendus comment ils parlent ou bien tu as déjà fait avec eux jikko ou te change te du Sois attentif si bindi, la façon qu'ils écrivent ils parlent tu vas aller cerner qui est derrière.

ba may wax waxum politique sax di nekk si Macky du ma doon saaga ma bàyyi Macky ñëw nekk si kii ñoo ma topp ba tey fu ma dem mooy mooy lan du moom du ma ñeewantal ñeewantal boo xam ne que suñu sañoon mel ni man mais yàlla mayu leen atu boobu noonu joxu leen nu mën a mel ni man léegi nag du ma koy teg si la ñeewantal mooy booy bi léegi du may xool di ma engri seen xol yi di yëg di néeg léegi xamu ne lu ma def du leen neex xam nga nit di ko bañ tey xamoo lan la parce lu tax soo toogee ba nga xalaat parce que daam fu mu la tanee am lu mu la ëpple soo sañoon nga àgg fa mais mënuñu ko moo tax nag les gars yi mënumaa def loolu su ma fëllee droite du ñuy fëlu gauche su ma fëlee gauche du ñuy fëllu droite parce que tuut naa leen si xol bu yàgg c'est ça le truc quoi mais gars yi nii day seetaan de dara du maak ñoom comme moo ko waxee rek du maak ñoom man moom maak seen kilifa diine yi la quoi maak seen kilifa diine yi la. tombook lu def noonu comme que tey kafaar yi ñeme woon ko dañoo bëggoon rek def kii nii tourné daw ah comme boog maa ngi dem dégg ngeen day kafaar lu def noonu dégg ngeen caaw caaw glëg la ñaam ñaaw glëg la comme que yenn saaga kii nii ki ne taay kii nangam ana job job job Diop taay daa jël dosam moo tax nee na fes yi jaay réew nee naa leen man maa ki yenn dama leen di tingom di dóor ay double salto réewante maa leen gën a réew fop làmmiñ du lek morom làmmiñ ñom te ñor xamadi ma leen gëna a teppeeku fop junni yoon voilà mais nak ya amna lu may doxé moy lan un respect respect bi moy toujours comme nous ma koy à travers ces internautes ñuy jël sen temps xam nga yàq ko pour tok di ma seetaan wala ñuy déglu wala pour nu mën partager motax lu may def toujours du ci si dem ba di naan dama ci def affaire de ma tay je veux leen ci xalat dama leen ci sour ya ngi comprendre parce que au moins pour rek le temps qu'ils m'ont donné et l'estimation qu'ils me portent mais nak, ça ne veut pas dire que je suis un clown ou que j'ai peur de qui que ce soit wala que je la ilaha illallah loolu rek la am nee L'autre réclame, c'est sans connaître les soucis. soo j'en suis je suis un conservateur un conservateur léegi va apprendre du coow du jeex coow li lu tax fi, ba ma posé samay question c'est ma tontoon si njëkk ak comme nous ma ko un instant gii nii fekkoon nous avons une solution wala nu toll fu sori si yoonu yàlla mais lu tax wax gi egsi ba fii dama posé question nu saaga ma di ma jaay réew foog ne ni que réewande mooy tax ma bàyyi posé samay question man na leen nag nen sa dem ñëpp a réew su nekkee da ngeen foog ne que noonu ngeen ko nar a faje foofu noonu nag ngeen ko nar a rajaxee nak mu kat xolal mu zambalaa catastrophe ka raar ka waay déggoo leen ma de du am du am à chaque époque ak luy dox époque bii nag c'est le nouveau changement c'est le changement tout ça là nous sommes déjà morts donc vous ne pouvez pas tuer deux fois un zombie quelqu'un qui est mort tu le tues deux fois on est mort on va faire les choses comme il se doit c'est fini toutes ces choses là maslaha maslaha des morts qui maslaha non non on ne maslaha plus on meurt tous ensemble ou bien on vit ensemble mais arrêtons ces conneries quoi Arrêtons cette euh, discrimination qu'on veut faire. Voilà ces choses, ça ne va pas marcher. ça ne va pas marcher ça ne va pas marcher moi je remercie toujours comme nous ma koy ils se respectent ils se respectent live je vais aussi en profiter Je respecter les gens, je les remercie parce qu'ils m'aident aussi à changer et ils m'aident à apporter un respect

mais tamit comme ma ko waxee doomu xaraam yoo xam ne ni que ils ont aucun état d'esprit nu benn grande maturité wala dara seen bopp ñoom jàpp ne ni que yëfu reewande bi moom moo koy kii mën na leen nag man nag boog maa leen gën a kasarak maa leen gën a kasarak mbokk boo neen xam ni que fii dara amu fi comme boog ngelaw fii fekk luñ fi andi moom leen fi yóbbaale luñ fi andi teg ko fii dinañ ko fi yóbbaale point comme boog neen andi jàmm àndaale yar ak teggin moo gën si ñoom looloo gën andi ay tontu nag yu bëri waaw tontu yi tamit nañ ko àndaale buñ ko fàttee suñuy ñëw waaw tontu yi moom nañ ko àndaale quoi buñ ko buñ koy fàttee loolu da siy baax da siy baax lool te ay maa leen jëlal campagne nee naa leen si kaw ak suuf fu nekk naa leen foo fekk toj seen lu bon. voilà amul sax ma dem te ñëw dañ fi la nekkoon di saaga saaga mag ñi saaga nit ñi ku wax kii nàngam ku wax nu dugg sa caaya wur ko saaga di jaay reewan man sama wax ba reetu si kaw sa suma paree ba raccroché si suuf dama leen di jële ji naa seen benn par benn yéen xam ngeen ma sama bii. jaayuma ko dama koy maye gratuite nen def noonu ba si beneen waxtaan peace love and harmony di leen jéggaluwaat encore naa leen le combat continue